l'ambassadeur de la jeunesse ki nga xamante ni jamono ji Sénégal wërngal këpp Afrique wërngal këpp foo ne waykatu Sénégal ñaari tur lañ lay tuddal Youssouma Djigendour, Wali Balago Seck moo joué ginnaaw nag joué concert boobu kii di Biz dafa mer sœur personnellement c'est mon ami sama xarit sœur Samba Diallo son manager c'est un ami c'est un frère on partage beaucoup de choses mais jàpp ni Biz peut-être xol la wala dafa mais aussi journal People lañ la frustré et trahi

manam bi frustré dal mom ben benn walé la indi walé bi nak tefu ko ci kaw ken ku dul Youssou Ndour ak Wally Seck ginnaaw Youssou Ndour ba mu demee foofu ca université def fa benn concert gratuit Youssou Ndour ken wawuko mom mo jël moyen dem def concert gratuit xeyna nak falé place de la nation dafa am ben société bu bëgg a def publicité jël Wally Seck yóbbu ko foofu mais yakarna ni Wally Seck tamit moom mi don def concert bi je crois que artiste sénégalais le le représenté ndaxte coupe bi Sénégal que ko moom Wally c'est le chanteur du peuple c'est un sénégalais la sur son compte Instagram elle a affirmé que certains ne font que de la récupération après la victoire des Lions pour n'avoir pas osé chanter avant la compétition dans un walais, elle attaque Youssou Ndour et son fils Wali Balagosek. L'oldal le Nana dégoûtant trop d'hypocrisie dans ce pays des artistes qui avaient même peur de galvaniser l'équipe au tout début de la compétition de peur de représailles des internautes s'accaparent aujourd'hui de la victoire finale Personne d'entre eux n'a osé chanter, mais pour fêter la victoire finale, ce sont eux qui sont au devant de la scène. Ceci n'est, si ce n'est pas le père, c'est le fils. Madame Soudoul Papadi Yusundur, ou Dom Walisek. Tous des hypocrites, eux comme les organisateurs. organisateurs. Ce lobby de cercle fermé va cesser. Et si je vous le dis, il faut me croire. Ce jour viendra et je m'en fais mon propre combat. C'est fendu d'un poste. Qu'une bise sans les nommer elle fait allusion à Youssou et à Walisek. en tout cas jàpp nous daal ñu way gagné, euh, yi gagné, qui gagné, ay son de bi gagné dañu essayé nous na du dara ay lobby hypocrisie la ñi nga devant la scène papa ji Youssou Ndour ji la Wally en tout cas Kinbiz, mais c'est une sœur que gagné, gagné, nous si jàppee l'équipe nationale du Sénégal pour 17 millions d'habitants, il a la na pour 17 millions d'habitants, il a la na pour 17 millions d'habitants. Il yi la ndaxte tey place de la nation Kinbis su ñëwee ba ci kaw seen waale kenn du ko fa tere yéeg kon Kinbis moo waroon njëkk a jàpp ni que victoire bi victoire am la warul xaar ku ko ci woo warul xaar ku ko ci fekk moom moo waroon dem fete ji ko dem ci kaw seen bi wane boppam avec la jeunesse ànd ak Wally ko Seck tey ni ko Youssou Ndour defee université Kinbis su demoon université yaakaar naa ni suy bëggee yéeg ci seen Youssou Ndour Youssou Ndour du côté ndaxte en 2013. bi Kinbis bi ko Youssou Ndour di invité Bercy man ak moom ñoo nekk doo woon ci coulisse bi kon ki la yëkkati Sénégal invité la ba Bercy jënd la billet d' avion jox la otel yéegee la ci kaw seenu Bercy en 2013 yaakaar naa tey soo ñëwoon ci seenam du la bañ je crois que na xëy na peut-être fugg la ak saar gi da nga juum du ma ne tu es incorrect parce que nit ko baax nga nit ku respecté nit nga xëy na tey bëggoon nga ñu woo la mais dama jàpp ni ndam bi tey ndambu Sénégal la kenn warul xaar ñu woo ko ndaxte bi ñu nee prip Sadio Mané dugal peranti bi ñëpp génn seen kër kenn xamul fu fa kii jaar gauche kii jaar droite ki la jaar fépp kon yaakaar naa tey suñu demee ba sargal am yow waroo xaar ki lay woo Pape Diouf warul xaar ki ko woo Sidi Diop warul xaar ko woo Viviane warul ko woo warul xaar ki ko ñëpp war a ànd jubilé feetandoo affaire bi c'est nous Ballago Seck seenu King Biz la seenu Pape Diouf la seenu euh, Sidi Diop la seenu Tarba Mbaye la seenu Tallou Diazaka la bañ ba Wally Ballago bi Baye Demba ñëpp xam nañu muy percussionniste su Pape Diouf bi mu yéegee ci kaw scène daf ko invité naa la coupe bi dañuy def tournée nationale ànd ceeg AB corporation bu Adama Bey nekkoon fi premier manager de Seck moom it encourager encouragé bu baax a ci initiative yooyu mu jël tey dañuy wër régions Sénégal yëpp yóbbu fa coupe bi ndaxte coupe d' bi du coupe Dakar

kii euh, euh, ñu indi coupe bi foofu ca Linguère ba nga xamante ni Thiam aussi pour repos de sa mémoire dina ko mën a gis en tout cas kin biir attaqué na bu baax kii di Youssou Ndour ak Waly balaago Seck mais nañ jàpp ni dafa juum xëy na contentement la ak li mu yaakaar mais nañu jël coupe bi def ko yëfu sénégalais yëpp bu kenn xaar ku ko ci woo bu kenn xaar ku ne ci fu concert am ñu war a sargal coupe bi ànd leen ci caravane boobu je crois que Waly Balago Seck suy def tournée ak coupe d'Afrique boobu euh, di ko wër ak moom ci région yi Kinbiz Pape Diouf Sidi Diop kep kuy artiste Sénégal war nga ci mën top ñi ni Sénégal ben bopp la kenn mënu ko xar ñaar ni classe politique bi dajale ñom ñoom ñëpp ci fële aéroport je crois que il est temps que tay musiciens yep ku ci nekk nga dajaloo ñom ñëpp ñu dajaloo ñi gis Wally Seck Pape Diouf Safante Wally Seck Sidi Diop ñom ñëpp Vivian Titi ñom ñëpp ñu dajaloo ñi xamna Sénégal ben bopp la kenn mënu ko xar ñaar yàlla misaal nañu ko ci football bi muy 33e édition Coupe d'Afrique des Nations remportée par l'équipe nationale du Sénégal qui est au sommet du football

C'est une fête nationale. Alors, je suis le chanteur du peuple, c'est vrai. Alors, c'est à moi de servir le gâteau. Yves Grand, nous leen du partager ko. dëgg la ñu leen ñu fooyee ko. ndaxte ñu leen ñu waxtaanee ko. kon ñoo gisandoo vidéo boobu nga xamante ni Wally mi ngi invité grand frère am Pape Diouf rakam Sidi Diop ñoom képp kuy artiste Sénégal invité na leen ngeen àndandoo jël coupe bi Sénégal ñu xam Sénégal benn la kenn mënu ko xar waaye nag nañu jàpp ni yàlla mooy maye jamono ji suñu musique yàlla Youssou Ndour ak Wally Ballago la ci kaw le chanteur du peuple c'est l'ambassadeur de la jeunesse mu neex ma moom la mu naqadi ma moom la mu neex keneen moom la mu naqadi keneen moom la nangul lu yàlla dogal da ngay noppal sa Do, ni ko kii waxee rek soo wéetee xaru mais soo nangul li yàlla dogal saa yoo wéetee yaa ngi jam sa bopp te kenn jamu kon nañu jàpp ni que coupe d' afrique bii waa yi doon fete foofu ca place de la nation Aliou Cissé ak joueurs yi ñoom Saliou fa nañ jàpp ni c' la victoire du Sénégal c'est la victoire des 17 millions de sénégalais C'est pas la victoire de Macky Sall c'est pas la victoire de Ousmane Sonko ni la victoire de Bougane Gueye Dany ni la victoire de Abdoul mais c'est la victoire des sénégalais on doit être fier d'être sénégalais les sénégalais ubbi sen nous xam ñan ñoo bëgg Sénégal ak ñan ñoo bëggul Sénégal en tout cas Gatien ngalama au président de la République Macky président de l'Union africaine samedi l'équipe nationale du football champion d'Afrique le dimanche le Sénégal au toit de l'Afrique en tout cas bravo au président de la République Macky Sall nous lui souhaitons beaucoup de continuation et bon courage Vous nag yàlla moo koy teg ci nit yàlla dafa jaarale ay wërsëg yu bëri ci loxo Macky Sall Macky Sall c'est la pétrole bi feeñee Macky Sall ci la gaz bi feeñee Macky Sall ci le train express régional lu ñu doon ci dëkku tubaab yi ci Macky Sall la BRT feeñee waaye bravo aussi au ministre du sport Matar Ba Matar Ba le ministre du sport digne Sénégalais Matarba Matar Ba mbër yi am nañu arène nationale Matar Ba ñewna am nañu arena fu ñuy baskettee Matar Ba ñewna na am nañu stade euh, pap Bouba Diop kon yaakaar ni ku gis nen ne nen ngi nit ki nak suy liggéey dang koy encourager mais Sénégal lu bonu nitat la ñuy gis ni ñuy waxé défaut yi non la ñuy waxee yu bax yi en tout cas gàcce ngalama au président de la République Macky Sall gàcce au ministre du sport Matar Ba gàcce à Aliou Cissé l'entraîneur entraîneur ngalama à Aliou Cissé l'entraîneur tu es le fait partie des meilleurs entraîneurs que le Sénégal n'a jamais eu depuis qu'il a commencé à jouer au football. Gatien Galama à toute l'équipe nationale. Gatien Galama à toute l'équipe nationale. Gatien Galama à Sadio Mane, Khalidou Koulibaly, euh, Saliou Sis. Gatien Galama à Bambadien. Gatien Galama à Famara Djedjou. Gatien Galama à Boulaïdia. Gatien Galama à Nampalis Mendy. Gatien Galama à Bounassar. Gatien Galama à Edouard Mendy. Nous vous disons bravo, bravo, vous méritez tout notre soutien. The lumpy top.